la woon rek ñu avance Bougane gay Dany tay joy na fi joy yu metti parce que bugul fay impôt d'après mes sources Bougane dafa jaay senti yi d'après mes sources xaalis bi da ko rawale ñu ngel nak de xol xaliss bi tan moko ko Sénégal ak naka lañ ko génnee ak fan lañ ko ok man duma si sa yëngu trop quoi mais sama gars ñu ngi ci bu ñu ma e joxee information ma jël mais parce que du affaire de privé la quoi le bopam la mais ci l'autre côté comme des politique il faut aussi ñuy wax lu ñu xam ci mom te man personnellement Bougane aw ma confiance ci mom musuma am confiance ci je le respecte nak parce que c'est un ñafekat comprendre mais xamna aussi nañ ko jàppale kuñ ko jàppale woon nga réussir ñu nekk ci ginnaawam ku nekk sa ginnaaw nga réussir mais bugul fay impôt na fay dafa war a fay impôt ku nangul fay impôt na mérite pas de diriger notre pays da ko war a fay Bougane compte amatul compte biir Sénégal bu am un million CFA mais comment il fait pour payer ses employés fan la denc xaalisam bugaan moo tax ma naan Sénégal liggéeyu Sénégal bu liggéeyoon amul benn un franc bu nit di jaay biir réew mi te duñ ko gis xoolal fee tubaab bi construire nañ seen système ba nga xamante ne yaa xam koo mënta doon un franc boo dépensé yaa xam nga dugg ci boutique jënd tàngal yaa xam nga taxaw ci station d'essence jënd essence yaa xam foo taxaw amul nga jëndee ko euh, euh, cash ak nga jëndee ko carte euh, carte bancaire wala crédit carte dafay feeñ si leur système finance service des finances ñoom fi ñu toog la ñuy toog rek di gis lépp gis nga fin de fin d'année bu ñu la envoyé say impôt force da nga koy fay wala dootoo liggéey dootoo dootoo amati accès ci dara noonu la ñuy yaree un peuple surtout un peuple indiscipliné ay système moo ko yar du ay wax ñun ñun ñun bi àdduna nekkee àdduna ba léegi ñu nga wax ñun ñoo gën a bëri wax ci kaw suuf Sénégalais moo gën a daj ngaam ci lu yàlla bind ci kaw suuf wax rek mën a wax nag bëri xam-xam mais amul dara lu ñu ci appliqué lu ñu wax ratatat rek suñu intellectuels yi bu leen université yu gën a mag nag la ñu jàngee ñëw toog sol ko sem takk karawaat di fen rek wala même bu ñu fenul lu ñuy wax dëgg la mais du ñu appliqué du ñu dara ci kaw te complexe ñoom ñoo taaral Sénégal ñoom ñëpp nag amul xaaji amul seen ñoom ñëpp nag des vrais corrompus des vrais imbéciles des vrais toobi waaw yow wul ma tax a wax lu ma warta wax ma maa leen mere complexe boo leen gisee fii wala nga dem dans les heures nga gis ñuy gréel biir ay vrai dof malhonnête nag honnêtuñ jeu yu salte rek la ñuy donc moom jusqu'à preuve du contraire man Ousmane Ba ci samay source yu ci matériel yi ma ci information yi ma am Bougane travaille pour Macky da nga ma wax ni waxoon naa leen ko même soos laa daan waxoon ci idi ñi saaga fii ñi mer fii ñi wala la ñi accuse à la fin à la ngeen teg seen bët la même soos laa leen wax ci Bougane la même chose laa leen wax